ñu toll ci wàccaayu màggal gi nga xam ne ci la Serigne Touba gërëmee woon maam Cheikh Ibrahima Fall comité d'organisation bi doon amal ndaje ak préfet bu Mbacké ci benn CDD préfet bi nag dalal na seen xel ne dañu jël mboole matuwaay yi nga xam ne moo jëm ci màggal gi. waxtaan nañ ci ci wàllu kaaraange police donc ndax zone police la donc dina jël incha allah matuwaay yi fi wax yëpp donc euh, jël jël nañ coordonnées yi ak yëpp noonu la ñuy def tam ci wàllu sapeur pompier. donc euh, wàllu aussi wér yaram ak cet jeune donc euh, ak UCG donc parce que yooyu yëpp ñoo ànd waaye itam euh, waxtaan nañu ci wàllu commerce eaux et forêt élevage wàllu ndox wàllu courant ak aussi lépp loo xam ne mairie donc dëgg ngeen secrétaire municipal monsieur Pape nu mu waxee donc comme ñoom taxaw nañu tem aussi donc pour lamb ay domaines yu yu bëri nag te wute incha allah donc pour que mu nekk magal bu mucc ayib. préfet bu Mbacké Mamadou Lamine Mané insisté na ci sensibilisation mu jëm ci wàllum cet gi rawatina ci ñi nga xamante ni dañuy naan ay mbuus di ko sànni ci mbedd yi. donc euh, loo xam ne tey euh, daanaka Sénégal nit ñi daal loolu la ñu bëgg mooy programme zéro déchet bi parce que ay nit fu ñu daje rek toujours euh, nit ñi ñu ngi naan dox ak mbuus yi donc ak bouteilles yi ak yooyu yooyu donc nit fu mu nekk rek dafay am déchet. donc ñu lu ñun ñëpp ak collectivité territoriale mairie donc population bi donc talibé yi waaye état ñu ànd ci ak UCG. comité d'organisation bi nga xamante ni Serigne Dame Fall moo wax ci seen kàddu rafetlu nañ taxawaayu préfet ak mboolem chef de service yi jëmee ci màggalug maam Cheikh Ibrahima Fall gi. maa jottali rek cantug Serigne bi Serigne Gunda mii toog nee na mi ngi lay sant bu baax préfet di sant sa collaborateur yëpp ci turu Serigne Bassirou Fall alxuraan. màggalug maam Cheikh Ibrahima Fall gi at mu jot Serigne Bassirou Fall alxuraan moo koy taxawee di ndigal loo xamante nii ni moo Modou Aminta Fall moo ko ko joxoon. bis bi nga xam ne Serigne Bassirou Fall mi ngi koy taxawu day ndigal loo xam ne mi ngi ko jëlee woon ci magam ju baax ja Serigne Modou Aminta Fall bi mu fii ne la ko joxoon ndigalul muy màggal bis bii nga xam ne euh, ci la maam Cheikh jotoon ngërëm ci Serigne Touba mu sant ko gërëm ko xamal ko ne ko. mën naa dellu si yaatal lii nga xam ne moom la liggéey bi mu doon liggéey ko sëñ Touba mat sëkk mu war koo mën a yaatal bis boobee di bis boo xam ne bis bu am solo la bis bu jar a màggal la ndax euh, dana wax ni euh, sëriñ tubaa bi muy nekk kër sëñ moor Anta Sali wajuram bu baax wa booba amul woon ndigalul woote kenn ku ne xam na ni euh, sëriñu jàngale la woon amoon na war ma juñ ko joxoon waaye nag. yoonu murit moom mi ngi soosu bi Cheikh Ibrahima ñëwee ba joxe boppam rek ndax yoonu murit fi nu koy tënk mooy nit ki da ngay jébbalu di jëfe ndigal di bàyyi ay tere loolu nag Cheikh Ibrahima ko jëkk a def si kër Sëñ Touba keroog ba mu ñëwee kër Sëñ Touba fekkoon na fa julli fekk fa woor fekk fa jàng alxuraan fekk fa xeeti jaamu yàlla yëpp waaye lam fa indi te amu fa woon mooy kennal Sëñ tubaa ak lëggéeyal ko te yàlla rek tax te loolu képp kuy murit fi mu ne si loolu rek mooy sa yitte si loolu rek ngay góorgóorlu naka noonu ku fi mas a toogal Serigne Touba rek ki fi toogal Cheikh Ibra nee na la dan na rek lépp loo yittewoo wala lépp luy sag bëgg rek loolu mooy yittee njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ba fii ñu toll kii fi ne di Serigne Cheikh Fall jëmm loo rek mooy ak bëggam. màggaluk maam Cheikh Ibrahima Fall gii nag di bés bi nga xam ne ci la ko Serigne Touba gërëmee woon ren jii mi ngi fas yéene doon le 15 novembre 2019 fii ci Touba Mbacké ci quartier bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw Jannatul Mahwa ñu naan ko Baye Fall